am une volonté teg tànk maanaam kilo dikk añ su la joxee ndékki na sa xel dal ñun ñëpp buñ sañoon yëf yi wàcc comme niñ koy waxee wàcc ba wàcc ba un franc waaye nag il ne faut pas qu'on oublie que dafa am lu ñu fi fekk dafa am lu ñu fi fekk te loolu pas dans dans dans dans du du du d'un seul coup euh, ou d'un claque comme ça rek que ci la ñuy egg ñu ci ni ñu ko bëggee ndànk-ndànk la sa va venir mais puisque y a la volonté li may wax rek c'est de les encourager li may wax aussi di leen gën a ñaax nuñ ci gën a mënee def def ay jéego rek ñu def ko ci te xam ni gis nga ñii fi nekk seen préoccupation du lenn lu dul le peuple sénégalais am na yoo xamante ni kenn du ko wax ci kaw mais peut-être man mi ci am benn pepp suuf bu ma ciy xam dara peut-être euh, mu ëppale la lambda benn niveau d'information ci actuellement naka la ñu nekkee di gymnastique di daw di xool nan la ñuy def ba askan bi gis boppam ci réew mi nan la ñuy def ba nga xamante ni lii alalu Sénégal xaalisu Sénégal sénégalais yi dañ ciy gis seen bopp wallaay euh, su fekkoon mën naa wax lépp les sénégalais dinañ xam ni nañu dalal seen xel te dal incha allahu rabbi mim réew dina neex ba mel ni màkkataa incha allahu rabbi mim réew dina neex ba dàq USA ci kàttanu yàlla ak mbaaxam eh li may wax dama ko gëm je j'invite à tous les Sénégalais de croire en ça yeah. Ah. Euh, les les comptes de Walfadjri ont été débloqués xam naa ni sax yëg nga ko wala da nga nekk ci activité sànq ba ñuy ñëw lañu ko liir alors euh, looy wax ci loolu. c'est une très bonne chose c'est une très bonne chose je le dis pas parce que dugg na fii mais une télévision comme Walfadjri nanu ko bàyyi mu nekk un mur de lamentation et un mur de lamentation tout président démocratique qui le comprend Walfadjri ngay gën a soxla sax que d'autres télé parce que c'est une télé boo xamante ni li ñuy def man loolu wooweewu ma ko opposé wu wala critiquer wala saboter mais li ñuy def ils rendent service Walf rend un grand service à tout gouvernement qui est euh, euh, buñ fi mës a teg parce que ki nga xamante ni mooy nekk sa bët Walfadjri la ki nga xamante ni mooy nekk say nopp moo lay wax li li li sénégalais bi nekk au fin fond du Sénégal di di di dund ak li mu soxla ki nga xamante ni moo nekk sa tànk mais kooku amuloo fayam Walf c'est une télé qu'on doit protéger. Walf, on doit en faire un patrimoine. Sérieusement, on doit en faire un patrimoine parce que c'est une télé qui a toujours été là et ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est une télé qui a participé sur toutes les alternances et ça ne date pas d'aujourd'hui. Donc bravo et que cela continue. Et Walf aussi, continuez leen ñi ngeen nekkoon dee leen wane di nga xamante ni Euh, askan bi li mu li nga xamante ni loolu la soxla wala loolu la seen autorités yi nekk ci seen localités yi di leen teg wala loolu la nga xamante ni seen autorités yi nekk ci seen localité yi bañ ko jottali ñi ci kaw Walf day leen koy wan ki nga xamante ni mooy le président de la république Bassirou Diomaye fay di ko wan ki nga xamante ni mooy le premier ministre Ousmane Sonko di ko wan tout son gouvernement on a besoin d'une télé comme Walf moi je l'appelle le mur de lamentation. président ñëwagul. président tànk bee diis. waaye gis naa nu ñàkk xorom euh, tey dagg ko ci TikTok bi di kii nii mais attends il nous montre juste que c'est un c'est c'est-à-dire le message li ci nit ñi war a comprendre mooy c'est un sénégalais mooy li ma wax tout à l'heure gis nga nit bu la yàlla mais cent mille demal nga wuti luy jar cent mille c'est ce message qu'il voulait faire passer mais nga gis les mal intentionnés bëgg a jël loolu di ko euh, di ko di ko utiliser jàppal bàyyi dugg na fii man dans mon interview j'ai dit que ni tout le monde sait que ni ce mouton coûte plus de cent soixante mille mais dafay am am na communication et Diomaye c'est un communicant le président c'est un communicant donc il communique foofu mu ngi wax ak sénégalais bi xoolal il ne faut pas avoir le complexe Ivan Man sa président tout le monde sait que ni Diomaye voilà quoi il a plus que cent cinquante mille pour acheter un mouton mais Diomaye c'est pas lui c'est le sénégalais Diomaye mooy le miroir le miroir du petit peuple le miroir des hommes d'affaires le miroir des des des des des des des des voilà quoi c'est lui le chef de l'État chef suprême des armées lépp lépp lépp lépp lépp donc Diomaye événement bu xew war na am nu mu ci communiquer il faut que sénégalais yi xam ni c'était une forme de communication du ma wax sax les sénégalais mais euh, xaw ma xeetu ay adversaire lañ kenn xamul lañ lan ñu lewet te ñàkk xorom te soof te te te lakkaleel yéen douze ans. ngeen ñàkk xorom sonal ñu fitnaal ñu rey ñu tëj ñu ci kaso yi def ñu lu bon lu ne yàq suñu der yi fenal ñu def ñu lu ne yéen vous osez ouvrir ouvrir vos vos sales pour dire quoi arrêtez ces peines perdues vous ne pouvez pas manipuler les Sénégalais vous vous êtes vomi vous êtes vomi par les Sénégalais donc may leen ñu jàmm ngir jëm yaa Rasulullah et laissez laissez ces gladiateurs là bossaient pour le pour un Sénégal meilleur. merci beaucoup bàyyi la nga daal di tàggoo daal di souhaité waale itam bonne fête de tabaski par anticipation say clientèle waaye itam ñi nga xam ne dañ lay suivre. waaw mais ñu ngi ñaan jàmm ñu ngi souhaité une bonne fête de tabaski à tous les musulmans du monde entier mais surtout les musulmans d'Afrique mais les musulmans du Sénégal di souhaité. vraiment une bonne réussite à ce nouveau gouvernement bii nekk seen première tabaski wax dëgg yàlla ñu leen di souhaiter une réussite parce que la répétition elle est pédagogique oto ba yeb sa njaboot di dem ñaanalal chauffeur bi mu mucc parce que bu muccee sa njaboot mucc donc le mal le mal le pire que je souhaite à ce gouvernement c'est de réussir leur mission Et le mal, le pire que je souhaite aux Sénégalais, c'est d'être satisfait. Donc bonne fête à tout le monde. jaajëf. merci beaucoup kilifa ñu koy gërëm bu baax ñëw nag fekk ko fi nga xam ne moom moo ci dara lam gi lee doon waxtaan ak moom ci euh, xar yi waaye itam ci actualité bi le jërë ngeen jëf